Euh, mbokki téléspectateur euh, mbokki jullit yi gannaaw sant yàlla julli ci na sallallahu alayhi wa sant Serigne Touba euh, sant sunu kilifa diina ci réew mi Sénégal nu sant soxna maam Issa Mbacké xitaamuhu miskun njeexatal bi ay parfum la dana ñëw bu cappandaw jërëjëf dañu la sant bu baax Serigne Massamba gaynde Saalum gaynde Kajoor la reine du désert mu ngi ñuy toog suñu ginnaaw. si jàmbaar liggéey bi nga xam ne nag moom lañ doon liggéey Serigne Touba ci màggal bi muy liggéey bu rëy liggéey boo xam ne Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy xalifa général kullu na liggéey bi yëg na ko te na ko lool ndax dara féetoo ko kaw kaw ndax ay taalibe ñoo xam ne suñu borom dogal na ñu bokk ci doomu aadama yi nga xam ne yàlla leen a fonk sunu maam yi sa nag dal fii ci kër Sëriñ Abdou Lahad Mbacké bi doon berndeel mbooleem ñi nga xam ne ñooy handicapé yi mboolem ñi nga xam ne ñoo réer mboolem ñi nga xam ne ñoo amul fu ñu dal wala ñi nga xam ne suñu borom dogal ne mag njëkk nañu ñëw Touba te amuñu benn wàccuwaay boo xam ne am nañ suñ ko wàcc mu leen di berndeel di leen toggal ay ndékki ay añ ay reer di leen ko jox euh, ñu ci ñu ci ñu ci ñu ciy jëfandikoo tey nag nekk bis bi nga xam ne moom la ñu tàggatoo ak ñoom nga gis leen nii ci seen ginnaaw mu nekk image bu am solo ndax lii day wane ni sama maam Issa day liggéey Serigne Touba liggéey bi muy liggéey Serigne Touba nag daa nekk lu kawe ba ñii nga xam ne suñu borom day dogal ñuy màggal si li ko Serigne saali Mbacké daan waxe ne li ñuy màjjal wala li nga xam ne moom lañ leen di jox addiya buñ ci jënd sax nguusu ndox ndax loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy sagub murit loolu mooy taw feexu murit moo war a soxna sa Issa Mbacke xajoo leen ku ne xam na ni lu ko jiitu daana jënd ay matelas lu ko jiitu daana wut leneen ak leneen ren indi na ay ay yoo xam ne ngir ñoom moo tax mu indi kon at mu ñëw rek ak lam leen di indi kon dañ koy jox kàddu gi mu wax euh, yitte ji ak euh, gis-gis bi ak tawfeex ji nga xam ne moom la moom la ci am naka naka la ko gisee xam naa balaa loolu dañuy jël kenn ci ñoom jox kàddu gi mu mu wax ci turu mbooleem kuréel gépp rek su ko defee ñu doog a doog ñëpp ñëpp rafet démb rek am na seen Modou am na war a bàyyi xel bu baax a baax am na ci société bi ñu toll su ñu leen di société bi bàyyi leen xel bu baax li ñu def ñëpp ñu def mën a xool fekkoon ngeen ñun ñoo xool ñëpp ñu la ci encouragé ñëpp ñëpp ñu la ci encouragé dal gi ma daloo ñoom ak ñoom it kontaante gi ci am ñaan gi ñuy ñaanal rek mënuñu leen a faj ñoo ngi leen di ñaanal yéen ngeen di sax ñu wees ñu yàgg ànd ak yéen ci liggéey bi liggéey suñu tubaab bi ngeen yàgg fay ñu fekk yàgg leen a dalal yéen kontaan nañ ci yéen lool xam ne soo koy defal dara mu yëg ko di xolam di la ci sant di la ci gërëm nga xam ne ñu koy def ñu leen defal ñun suñu bopp lañ def ñu nag yéen yéen a yam képp rek ñu nag yéen yéen a yam képp si yàlla kon ñoo ngi gën di leen tàllal loxo ko yëg ndax li leen dara li ñu leen def dara fi ñu bëgg a yegg yéen passé na fii am na lu ñuy seet ay projet yu ñuy seet ak loo xam ne dañ leen koy jàppale loolu ñu ngi ci kanam li ngeen ñuy ñaanal loolu egsi ak jàmm bu boobaa di ngeen passé fii di ngeen am beneen dal produit bi dinañ leen gàttal yeneen gàttal yi te loolu yaakaar naa ne ci kanam dina egsi dinañ leen wutal ay matuwaay yu am solo ay matériel yu am solo loolu lépp mi ngi suñu kanam da ngeen ñuy ñaanal nag projet yi yëpp dañuy yaakaar ak partenaire yëpp ñu jot ci mën leen a defal teranga joo xam ne ngeen yelloo ndax lii ñu leen defal xeeb nañ ko lool kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla teg leen ci yoonu jàmm ngeen egg ci jàmm ngeen ci jëlee ngeen wóorloo ko ak seen njaboot bu fekkewaat ko déwén barke seen macha allah